fu ci waay mën a jóge wala fu ci waay mën ne te yëg bis bi àndandoo ak section Touba di jotal ay yóbbante yu jóge ci sëriñ Abdourahman jaar ci sëriñ Moustapha di wax rek ni jataay bi bis dafa bokk ci bis gën a rëy ndax yitte jikko la la li mu làmb yitte jikko làmb ak yéene ju rafet ji ca muy loo xam ne ñépp a ko yittewu mooy ñi ñi ñi ñibbi ak ñi fi desal ñépp a yittewoo ay ñaan muy loo xamante nit yéene ji munta gën a yaatu nii ñu ko tëggee way dawlu yépp lañu wax waaye dawlu yi nag dafa mel ne ku fi nekkoon ci nekkatoo fi rek ñibbi yow man xëyam ko ci nga amul askan amul waaso manees na wax sax ne xanaa li sëriñ bi doon ñaan rek moom ngeen di firndeel irham jamihal wara ji mu wax dafa mel ne lii firndeel na ci lu bare bare kon lu yaatu la euh, solo yi bis nag tax na képp ku ci teewul li ngeen xam ne daa munta teew waaye yéenéem ak xolam teew la fii mu doon loo xam ne kenn mënu koo xel ndax ñépp ko yittewoo amul ci jenn daraja ju yàlla mën a jox nit ci yittewul ñaan amul kon ñëpp yittewoo bis kon képp ku fi teewul rek ñàkk mën a teew moo ko fee teew kon ngeen xam yéen ñi fi teew ndaw lool nañ leen bu baax ngeen bàyyi ci xel loolu jàllee ñu soññ rek section bii nga xam ne moo am xalaat bu jekk bu rafet bi ca ay at mu di ko taxawal ca xaaru ci kenn waaye it ñëpp nangul ko ñëpp fekk si ko ci section boobu nag ñuy soññiwaat ñi fi dëkk ci muy waatu Tuubaa rawatam rawatina mag ñi ñu gën a takkaloo ca gën a ca ñi nga xam ne dugg gun woon ci section bi ñu ñëw dugg si ca xam ne am nañ secrétariat ni ko ñëpp amee am nañ secrétariat adulte ni ko yeneen section yëpp am ñuy ñaan adulte yëpp ñu ñëw fekk sinu ci mën a puus gone yi man leen a jàppale ngir yàlla liggéey bii bañ a laal ci anam ni ko sëriñ Muntaxa di waxe ndax liggéey bii kat dafa bokk ci liggéey boo xam ne saa su sëriñ Muntaxa yàlla fi yàggaat loo ci wér jëm ci sëriñ bi wala mu jëm ci lislaam xam leen suñu liggéey bii mu ci biir kon nag warul laa suuf ca ñàkk gee laa suuf mi ngi aju ci li nekk ci mag ñi ba mu jaral leen lépp ba liggéey bi egsi ñu def ko ci xale yi loolu nag mën a nekk ci kanam ànd ko ak gone yi kenn ku ne la nga man nga indi ko la nga xam nga indi ko mooy tax loolu mën a nekk kon kàddu yi defe naa du gudd sëriñ bi di ñaanal yàlla rek ñaan yi suñ borom nangu ko liggéey bi ngeen fi def yàlla na ko yàlla boole ci liggéey yi mu gën a nangu ci dara yi seexul xadim mi nga xam ne mooy buntu mooy buntu lépp di sant ci turu sëriñ Moustapha ak turu sëriñ Abdourahmane kilifay Daaru Xudoos yëpp ndax amut lenn lu ñu yëkkati ci fekk si wuñ noonu ci def muy ñu nu féete mag ñi nga xam ne ñun ñoo leen féete mag képp ku Seex Moustapha jaboote na nga xam ne ñu ngi lay ameel ameel nañ la cant yëg nañ sa taxawaay yëg nañ sa yëg-yëg ndax mosu ñoo yëkkati lenn ba ngi des ci ginnaaw te loolu ak bokkoo rek lay firnde ak yëgoo rek lay firnde ak bennoo rek lay firi kon ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp ñaan yàlla liggéey bi suñ borom nangu ko ñu yàgg koo def yàgg koo teew ci yàlla nangul ñu lépp ñu ci daan nekk ci yàlla jële leen fii ñaan gi yàlla bu leen ci kenn jiitu ci dara ji saxu suwaak rek dara ji saxu xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu moo téema yóg dénkaane waat fàttaliwaat te soññewaat